leeral ko ba tax na tamit euh, ki nga xam ne moo di premier ministre Ousmane Sonko euh, évoqué na ko muy euh, quarante cinq milliards armement yi nga xam ne ni signé woon nañ ko ci atum deux mille vingt deux ba ñu ci doon tudd sax ki nga xam ne moo di Macky Sall ak Abdou Karim Sall bokk na ci ak Abdoulaye Daouda Diallo ak ki nga xam ne moo di homme daffaire boobu di Petit Boubé. ñu doon mhm. doon tudd ci wàllum mhm. quarante cinq milliards armement yi léegi nag jot na pour ñu leeral sénégalais yi maanaam xaalis boobu ak contrat yi naka la demee. waaw xam Petit Boubé <laughs> moom tuuram fësoo na fi lol je me rappelle que on na fi scandale la question de l'armement mm. donc euh, des 45 milliards yi ñu tout de suite armement boobu je je crois même ça fait ça fait ça fait un taulier au Sénégal ñi ñi di si wax wax wax wax di commenter mm-hmm. donc euh, di wax ni ki même sax ay fusil mm-hmm. c'était destiné euh, donc, euh, euh, comment dire aux agents des eaux de forêt mhm. mais au final Ken gisul arme yooyu am na ñu ko doon wax fii ci jamono Macky Sall arme yooyu kenn gisuñu leen. Mhm. ñan ñoo bénéficié ci arme yooyu am na ñu la naan ñu ngi ko yóbbu ci stock stock sangam ñan ñoo ko yor diw ak diw ñan ñoo ko réceptionné. Mhm. mais loolu yëpp fooy dafay leer. loolu yëpp Sénégalais yi bëgg nañu mu leer pa Mor yéen tamit. ñan ñoo jënd arme yooyu kan moo leen di yónni. ban montant la ñuy yóbbu pour jënd armes yooyu ñan ñoo gagné woon marché bi loolu yëpp sénégalais yi bëgg nañu mu leer te inshallah dina leer comme le dossier a été encore mis sur la table. Mhm. donc man dama japp ni que loolu léegi mu leer. dafay leer parce que mënuñu continuer de ay scandale ay bambula scandale sur scandale scandale sur scandale di détourner ay milliards ba par ñu né France daal di ci dem kenn du ko topp kenn du ko saytu kenn du def enquête pour xam ñan ñoo si laalee. surtout lu toll ne surtout lu toll 45 milliards. c'est-à-dire que nit ñi dañoo habitué ay milliards ba à la fin comme le mot résonne tellement dans nos esprits dañoo dem ba banaliser milliards alors que milliards du lu ndaw milliards du lu tuuti Ablaye moo yàq Sénégal. Ablad un moment donné sénégalais je ne veux plus parler entendu entre man veux ay nit ñi millions. Mm-hmm. on parle maintenant de milliards. Mm-hmm. moi je le pays je hein. mm-hmm. jël millions des milliards monnaie désormais on parle de milliards on parle plus de de millions Ablad, mon ko fi andi maintenant qui ablad, boobu ñu gis ay bambula ay détournement ay surfacturation ay lunet ne xew fii ba ay nit taxaw sa déclaré ni que ablad mon moment milliards <laughs> Ablad dafa liggéey combien d'ans ñu ngi koy ñaanal Yalla, il a fêté son anniversaire hier quarante 98 mm. ans Yalla mu gudd fan l'homme mom mais imaginez ablawat pour May Macky Sall 8 milliards, ça va lui prendre toute une éternité de vie. C'est de l'ec d'ara, d'où économie d'ara. Parce que 8 milliards, n'ayez que 8 milliards, mais connaît, 8 l'y 8 000 millions. 8 000 millions. Hmm. Abraham, n'yata at le dundu, ak n'yata at le ligue, bay am 8 milliards, dit-il, dit on s'y entend, comment a 8 milliards? ilaa mom du lek du nan maintenant Abdoulaye Wade ñaata at la liggéey bay tibb ci économie 8 huit milliards di ko may Macky Sall boo xamante ne bokkuñu ndey bay baay ñu sante ci politique mo leen bolé Abdoulaye tibb huit milliards di ko may Macky Sall ñaata Abdoulaye ñaata lay desee fofu loolu laa la ne Abdoulaye mo yak réew mi ça aussi il faut le dire Abdoulaye moo yàq réew mi.

Macky Sall détournement yu amoon ci Macky Sall am musoko gis dans un dans ci ci état au monde la la wax musoko gis. parce que gis nañ ko tay ci journée. non mais soyons sérieux yoo xam seen dañuy ko deux fois seen salaire. mais dégg na ko ci journée ñu fay leen deux fois deux fois ci le même mois. c'est-à-dire que dañ lay virer dañ lay fay par virement ba par ñu fay la par par par papier. mané mané pas ne par billet. luñ la fay ci virement ñu andi ay billet di la ko fay xopet xopet ngay écouter deux fois. deux fois par mois. mais ci ban que la ñu pas mort Mor ñun ci ban dëkk la ñu bande ci ban Sénégal lañu nek nekk. am na sax ko doon fay géew lu juddoom un million cinq ah! par mois. ay nit yi ko deux fois dans le mois on nous dit combien le taux de de de comment de chômeur fa la tollu ci Sénégal le taux de chômeur ay nit di fay di fayeeku deux deux deux fois les di jël gaal gi di dee ci géej gi. bi. clandestine hein? mais il faut il faut que les gens euh, arrêtent. loolu la ñuy il faut que ñu fal ak Sonko wala ñu fal jomaay loolu moo ñu fal ko parce que ñun sénégalais ñoo am yaakaar ni que. Mhm. li ñu gis ci jamono Macky Sall bu dina changer dina rupture comme lu yaakaar boobu la am ci jomaay moo tax César de Bambou ci jamono Macky Sall la ñuy ne jomaay bu ñëwee bu ñëwee dañu am ni bu wala Sonko bu ñëwee dinañu andi mais sénégalais loolu am parce que on peut pas continuer de vivre dans ces arbres de méthode dans un pays qui fait parmi des 25 pays les plus pauvres au monde. Mm-hmm ay nit di ci fayeku deux fois dans le mois ci même liguey ay nit di luubal ay milliards ba pare kenn du len top. au nom de quoi au nom de quoi tey may may am information ni que plus de 150 voitures, voilà 130 voitures de l'État du Sénégal, continuent d'être euh, utilisées par des agents, de, anciens agents de l'État. Ancien régime, nous ay voiture de fonction bon la ne nga fonction Sénégal récupérer. mais ñoom d'utiliser ces voitures là des anciens ministres des anciens agents de de l'État ñoo ils étaient en fonction ils sont plus en fonction tu continues d'utiliser les moyens de l'État au nom de quoi c'est ça un pays sérieux donc si nous nee récupérer ces voitures là nous avons essayé de taxaw di non dara il faut arrêter ça aussi il faut que ñun sénégalais tamit ñu xam lu ñu bëgg lan lañu bëgg ak voilà fan la jëlé Sénégal ak fan lañu bëgg jëlé yobu yobu Sénégal ça aussi ñun sénégalais faut ñu xam lolu nit bu añ bu bu bëggé liggéey nañ ko avec 54% mais nous sénégalais ñoo ko war a jàppale àndandoo ñu liggéeyandoo Sénégal. Hmm. parce que Sénégal bu baaxee pour ñu ñëpp. bu bonee pour ñu ñëpp. amaana ñoom boroom daraja yi léeg ñu dagg visa. Hmm. dem reposé wu feneen Sénégal buy tàkk ci jamono Macky Sall ñoom dañuy bàyyi fii Sénégal muy takk ak ñun ñoom ñu jël seen billet dem Dubaï dem États-Unis lakkatu fa en attendant Sénégal muy boy. ba ñu fay. Hmm. ñoom ñu doog a ñëw. ñoom loolu la ñuy def. ba pare ñoom ñooy taxaw ci média dina wooy Sénégal bu ñu bëgg xaaral ba campagne jot ñoom ñoo gën a employé le le tour Sénégal mm-hmm. ñoom gën a employé le nom Sénégal Sénégal bu ñu bëgg Sénégal suñu avenir la suñu moomeel la ñun ñëpp bëgg Sénégal patati patata te bu ñu nee Sénégal tey mu ngi tàkk ñoom jël nañu avion dem nañu. bu politique ñëwee ñu ñoo taxaw ñoo gën a bëgg Sénégal que ñu doon taxaw Sénégal fii Sénégal di takkaale ak ñoom donc il faut que ñun ñu xam ñan ñooy les politiciens la il faut que ñun ñu ràññee leen xam leen bu ñu yëkkatee propos wala bu ñu yëkkatee ay ay ay ay kaddu ñu xam ni ñu décerner ni kaddu bii nii kaddu euh, euh, dëgg la wala ay kaddu fen la. c'est clair war nañu déceler loolu ñun sénégalais yi. c'est clair c'est clair enfin euh, am na beneen tamit lu xaw a fan yi muy redressement fiscal bi nga xam ne Macky Sall waxoon na da koy baal ñi nga xam ne ñoo di patron de presse yi. mais daa mel ni acte décret boobu mu jëloon dafa mel ni dañ ko mujjee abrogé. moo tax na maa ngi gis ay ñu mel ni ay Maimouna Ndour Faye mhm. eh, génn di ci wax même eh, ki nga xam ne moo di Mamadou Ibra Kane bu jiite CDEPS moom mhm. tamit génn na di wax na fii que président ba mu koy wax loolu noonu xam nga jomaay waxoon na ko temps campagne ba nee na eh, journalistes yi maanaam wala presse bi mënuñ di leen baal ay redressement fiscal maanaam mhm. loolu bu ñu ko defee rek day fekk comme si que dañ leen a jàppale ci wàllum fraude fiscale léegi lu mu waxoon ci campagne bi du loolu la nag di def Diomaye lu mu diggee woon loolu mën nga ko séedee ah. te du la wàññi dara. nga nekk opposant nga nekk au pouvoir nga nekk journaliste wala nga nekk leneen ak leneen loolu mën nga ko séedee Diomaye Diomaye lépp lu mu wax lu mu waxoon ci campagne bi mu ngi koy jëfe diggoonu bu ma demee mbuurkat kees daf leen diggoon ni que su ma faloo dinaa ñëw régler question mbuurkat bi demul mm. Ousmane Sonko ba mu diggoon les prisonniers ni que su ma faloo dinaa ñëw prison. sayti leen prison euh, euh, kii nu mu tudd. Cap Manuel demu fa. Diomaye mhm. bu mu diggoon sénégalais yi man su ma falwee la question yi littoral. Mhm. ak ñoom Ousmane ko mhm. defuñu ko arrêté wuñu ak leneen ak leneen mais nit da koy séedee ci ay jëfam du la wàññi dara man lu laa gëm. man dama séedee ci Diomaye ci ay démarches muy def te du ma wàññi dara yàlla xam na ko. bu defee loo xamante ne ko woon wala daf ko digge ba pare defu ko man je le premier à dire que ah donc jomaay ba mu opposant ak ak mais ba léegi defu ko mhm. mais bu fekkee diggewu na ko ba pare di ko mhm. donc ñu xam ni nitu kaddu la mhm. kooku nitu kaddu la maintenant su ma les impôts l'impôt de la presse mais wax ay waxam ba pare dem Macky Sall moo wax ay waxam ba paré dem yoonam c'est-à-dire que presse lu mu vérifier te vérifier ko dina len ko wax fi pour ñu dem vérifier ko Macky Sall dafa taxaw ne len bal na len sen 40 milliards d'impôts yenn presse bala muy dem la yëkëti kàddu yu mel non moom Macky Sall hmm. ni que bal na la presse c'est quarante mille milliards d'impôts hmm. mon bal na ko presse. Hmm mais Macky Sall ay wax est-ce que dans la faisabilité il y a un document qui a été signé. Mm. est-ce que presse bi dem na vérifier ni que Macky Sall lu wax c'était pas de la politique parce que Macky Sall nous a habités à des choses pareilles. Mm. Macky Sall mën wax ci alors que c'est des choses politiques politique la nekk di def boko ko yo ya yo yaay sonn donc maintenant ñu gis presse buy taxaw dina non jomaay lu muy def ni Macky Sall baaloo na ko parce que Macky Sall moo ko wax ci gémminam ni baal mais est-ce que bàyyi na këyit est-ce que Macky Sall bind na boobu benn ñaareel bi président buy dem hmm. président Bouydam, dem ñu ne a à une semaine nga quitter le pouvoir tu ne prends pas des mesures doy jël ay décisions à toi seul. Même si on a décision, tu vas consulter le nouveau président qui a été élu. Donc, il consulte. Non seulement ce président-là ne doit pas prendre des mesures ou des décisions, mm. voilà, bon, on a une décision de consulter le nouveau président élu. Mm. prestation de serment, c'est mais il a été déjà élu. Et mm. tu continues de prendre des décisions. Il faut arrêter. La presse, il faut que nous sachions ce que Macky Sall dafa wax ay waxam ba dem ñu gëm ko même si Macky Sall wax na ay waxam alors supposons que Macky Sall lu mu mais est-ce que le nouveau président qui est venu est obligé écoutez bien est-ce qu'il est obligé de se conformer à ce décret de Macky là est-ce qu'il est obligé mais non il n'est pas obligé il n'est pas obligé hmm. il n'est pas obligé alors ñettel bi des journalistes suma ma ay journalistes yi lié l'exonération de l'impôt de la presse ñu lié ko à la loi d'amnistie man damay am désolation damay né ñi xamuñu xamuñu seen liggéey est-ce que ils ont accès à l'information comment un journaliste voilà une euh, euh, euh, une journaliste mën na taxaw ne bo bo bo boo baalulee li nga tamit booy amnistie lii mm-hmm. wala bu dee am amnistie li mm-hmm. nga booleaale mm-hmm. ci tas bu ñu tas sa parti nga dugal ko ci alors que ñaari affaire yi méngoowuñu laa bokkuñu parce que yow dañ la andi impôt pour nga fay bëggoo fay mu mu jaral la ngay wax ay yenn kàddu yi yoo xamante ne waroo ko wax parce que impôt lañ la présenté ñu ne la fayal comme tous les sénégalais fayal yow nga ne yow bëggoo fay impôt mais yow nangu nga beneen entreprise fay impôt pour yow nga jëfandikoo en impôt boobu en tant que sénégalais mais yow nangoo yow nga fay impôt pour keneen jëfandikoo ko c'est ça l'égoïsme. C'est clair. C'est ça la malhonnêteté ils sont malhonnêtes. C'est clair. nit bu fekkee da nga nekk ci am réew ñu la entreprise de presse voilà, wala man maa entreprise de presse voilà wala entreprise ci ci façon générale war nañu fay impôt yow d'accord nga pour entreprise yi ci général ñu fay impôt mais d'accord pour sa entreprise mu fay impôt tu es égoïste. C'est clair tu es égoïste pas c'est C'est clair donc dañ la sant fayal impôt fayal. exactement. parce que yow bu subaa yow la ñuy jox aide à la presse yow lañ koy jox bu impôt yooyu la ñuy dajale. di ci fay ay salaire di ci tibaale ba jox ko à la presse comme aide. mais yow en tant que entreprise wala prés comment dirais en tant que chef d' entreprise de presse. yow nangu nga jël aide de la presse bu jógee ci loxo état. mais nangoo fay impôt pour mu dem ci loxo état. exactement sa est clair. c' est ça y' a il faut que suñu patron de presse yi tamit ñu xam lu ñu bëgg. exactement il faut que tamit ñu xam lu ñu bëgg. Mm. il faut ñu fay impôt. c'est clair journalistes nous avons des information mm. comme quoi que entreprise sangam ak sangam fay impôt. Mm. publier leen ko. Mm. nous ñu information publier mais maintenant bu affaire bi excès su ñun ñun ñu Nous impôt ñun yuhu, walu yuhu scandale affaire bi tout ma xam lan mo la téré xam da nga waroon xam. <laughs> c'est impôt léegi yow da nga war a xam nga xool. c'est clair xanaa kay nga même boo jaaraalee fa dee. sa entreprise ñàkkul dina fay impôt. exactement xanaa ñu tas ko. c'est clair euh, ñu jàll si beneen point tey gis nañ ko mii di son excellence.